jangat bi ñuy def ci situation bi xew fan yi dañuy euh, sa njëlbeen euh, dañuy ñaanal ñi ñi wëju suñu borom massu ñi ci am ay yaqku yaqku ak ñi ci gaañu euh, mais également kenn mënu ko rafetlu kep ku nekk Sénégal dëkk ci réew mi mënu rafetlu li xew parce que jam ci la lepp xaj buñ bëgg défar réew mi il faut ñu am jam il faut ñu ñaan jam dox ci jam waye nak dara bu amé day laaj taxaw sétlu ku ci nek joxe sa xalaat xam sa responsabilité lan la responsabilité collective bu ñe responsabilité collective ka ci jitu moy état parce que état moy borom kër gi état moy bay état moy yaay moo ñu jaboot ñun ñëpp bu yi xataw sax dañuy japp né état la euh lamay wax rek moy réew bu koy lu koy tabax jamm mo koy tabax damay ñaan rek ñi di politique ñi nek ci langue gi Euh, nekk ci média yi ñu gën a xool suñu wax parce que kaddu euh, kaddu mën na yàq am na benn borom xam-xam bu mag bu wax ne euh, nasaraan la mu ne les mots sont des wax balu fetal la ni balu fetal mënee yàq noonu la wax mënee yàq kon nag boo nekkee ci média di wax nanga xool bu baax li ngay wax li ngay wax ndax du yàq. na nga wax luy defar bo politik, ci politique ci langue politique di wut nguur wala yor nguur wala nek ci pegg président de la république na nga xam lan ngay wax bul démé arrogance na nga xol ndax li ngay wax ndax luy defar la parce que réew mi dañ ko wara defar mi kat ay kilifa yu mag ñoko tabax jox ko yenen kilifa kilifa yu jox ko yenen kilifa damay faral di fàttaliku rek ablay wad wax bu rëy bi mu ñun bobu ñi ngi nek étudiant mu ne je ne marcherai jamais sur des cadavres pour arriver au pouvoir du ma dox ci ay niiw pour dugg palais wax jooju wax ju am solo la bu amoon lu ko naqari dana yëngal euh, bu ko nguur gi xoolee mu wax leen xalaatam seet nu ñu nu ñu defaree mbir mi ba continuer avance terewu ko yegg si pouvoir bi waxuma nag ne kenn amul droit wax lu la naqari engagement politique ku ci nekk am na droit def ko devoir la sax man pour man l'engagement c'est un devoir euh, devoir boobu moo lay jox ay droit on a le droit d'être en colère am nga droit mer am nga droit wax li nga mer mais na ko intelligemment na ko exprimer intelligemment mais bul toj bul tal. parce que li ngay toj diko tal? bu fekke dañu bëgg développement développement li la koy may dafa am ben donné bu am solo bu ñu war jël en charge muy temps bu fekke tay dañu am tabax tabax dara tabax tali tabax yoon tabax hôpital tabax lenen. ñu ñew tal ko suba man bu ma ñëwee jot nguur gi damay tabaxaat encore danaa jël temps danaa jël xaalis danaa nangam nangam temps bu perte temps la donc ñu ngi wax suñu mbokk yi yor ay parti politique eh, suñu mbokk yi nekk ci géew bi nekk ci nguur gi nekk ci opposition bi wala bëgg nguur gi nen xam ne xale yi militants yi neen leen di former neen leen di encadrer lu ñu tuddee ko école du parti ñu densifier encadrement bi former militants yi ba ëllëg buñ ñu xam ne état du tàbbi mukk ci loxo yi koo xamante ni ku koy xalab wala ku koy yàq donc ñu tàggat xale yi former leen damay rafet damay dégg souvent yenn intervention yi école du parti école du parti loolu lu baax la mais neen ko gën a neen ko gën a yokk li ci des mooy nitu nguur ñi yor nguur nen xam ne noonu nitu nguur noonu président de la république mënul nekk un chef d'opposition un chef un chef de parti un opposant wala nit koo xam ne d'accord la moom ay idée dañu wara bayyi ku ku ku ku d'accord ak yow xalaat rek nga ne xaar ñu éliminer ko xaar ñu liquider ko xaar ñu neewal ko doole wax wax bu wuté da fay enrichir nit nonu homme de pouvoir deugantan événement la xew xew la xew xew mëno ko té mëno ko teunk dalay bet té bu la bété dalay fagagal donc nen gëna and ak dal bu nit waxé lo xam d'accordo ci mom jëmal déglu lim lo xam lan la nga ko comprendre les événements sont les ennemis des hommes de pouvoir aujourd'hui. Et les hommes de pouvoir ont intérêt à comprendre ce nouveau paradigme-là. Nous aussi, nous avons un pouvoir qui est fort un parti qui est fort Nous avons une am qui parti pour jàkkaarloon da nga neutraliser qui éliminer qui, mais beaucoup de choses souba. suba kan ban parti ngay jàkkaarloo parti du peuple est jàkkaarloo Le parti du peuple doo am ku doit dimbalé, doo am ay fusible soupape de sécurité dañuy ñëw dal sa donc ñiy jege njiitu réew n'en koy n'en koy parce que la parce que la mentalité du leader li koy déterminer mooy mentalité ni ñi la wër ñi la wër bu mentalité bu positive rek day am effet de contagion da ngay positif. programme bi nga xamante ni tëgg ko mu tudd PSE plan Sénégal émergent c'est un c'est c'est c'est c'est un choix que les autorités ont ont ont fait un projet collectif d'émergence heure dafa jot ñu tëbb ko taxawal ko mu nekk projet bu riche bu am doole. am na ay acquis am na ay am na ay faiblesse am na ay promesse am na ay perspectives yu rafet yu ci nekk waaye nen jàpp xel ne dañoo toog mu am lu dal ci àddina bi muy pandémie Covid 19 Covid 19 bi ñëw déstabiliser loolu yëpp jaxase loolu yëpp ak yi ñu amoon mu xaw ko yëngal tax na ba il faut ñu amaat taxaw seetlu pour xoolaat fan lu ñu jëm reconfigurer les perspectives xoolaat perspectives yi nan lañ koy taxabaat taxawalaatee. pour mëna dem ci euh, euh, ëllëg bu ëllëg bu muccu bu muccu ayib lool nak pour ñu yexsi fa il faudrait que ñu and ak dal il faudrait que jamm am il faudrait que ñu am responsabilité ci li ñuy wax ak ci li ñuy def lu am solo la ci gàttal dal njangat biñ ci am dañ japp ne crise la bo xam warona am amna waaye nen ku ci nekk na am taxaw seetlu bu amee taxaw seetlu situer responsabilité am ñu xam ne Sénégal gi bu tàkkee ñun ñëpp ñoo ko bokk ñun ñëpp ay perte nen góorlu ku ci nekk ñu jox la sa cër président de la République dañ ko tànn pour mu mu mu mu nekk ci boppu gaal gi yóbbu ko ca tefes ga gën tefes gu baax tefes goo xam ne jàmm dana fa am salaam dana fa am wér dana fa am yokkute dana fa am Comme koom dana fa am sécurité dana fa am loolu nag munuñ ko am bu fekkente ne nit ki doo ko jiital ba pare diko fakastal am nga droit opposé wu opposé wul fi nga war opposé wu moom mi nekk amul droit momi tam ne day day day éliminer ay oppo ay ay opposant ku la wul nga éliminer ko ne do bokk élection ki nga japp tej comme nima ko waxee sank donc loolu je pense que buñ ci toogee d'al. daal euh, solu ay solution dana ay solution dana am xam nga sous emploi des jeunes ba addina addina ba léegi ñu nekk ci état moderne euh, après la révolution industrielle état jóg taxaw ne damay taxaw place su communauté yi damay taxaw place su famille euh, bu ñuy dellu ci aada ak cosaan ci démb rôle boobu ku ko yoroon communauté yi ñoo ko yoroon ku ko yoroon famille yi ñoo ko yoroon famille moo lay utal jabar famille moo lay utal liggéey

senegal rew lu mo xamanteni mbay lañu xam ak sam mbay lañu xam ak sam xali yi gis ñuy daw ci mbedd bi di kase di manifester ñu ci bari dañ ci àll bi lañ joggé nen wañéku rew mi xamné richesse bi suuf ci senegal am nen ko développer delu ci mbay mi agropole yi ñi tudd xam nga bu wax moy indi wax nit ku nek amna fo joggé man ma ngi joggé ba Tamba département bu ñu wax Koumpentoum dañuy dégg ay projet product dañuy dégg ay agropole mais fofu suñu nijaay ak suñu mam ya fa nek bo len laaj dañ naan ah ñu ne loolu ay lepp dañ koy dégg rek ñu ngi wax njiitu réew mi nañu dimbale ñu am ci product Agropoli na dem fofu en 1974 ma ngi wax sànq ne Senghor am na projet bu am solo société des terres neuves xam ne ci euh, ca soowu Koupantoum dafa souf bu yaatu mu ngi fa souf bu nangu mu jël ay population déplacé len du Saloum yóbbu len fofu ñu bay tay économiquement fofu c'est une zone la plus viable du département je pense que euh, nous devons fondamentalement ñu jëm ci loolu le développement de l'agriculture, la modernisation de l'agriculture Faire un ndox mi nekk ci suuf ñu gas ko génne ko maîtriser ndox mi mais ne un département bu le département Koupentoum nekk département bay nekk département Sam, ak département forêt nous avons ay juróomi tracteur par at yoo xamante ni ñu nous Nous jëm fixer ndaw ji ci biir nous bi ñu bay ba pare aussi dem ci transformation li bay nous valoriser nous devons parce que faut boobu meew am suuna am na fa bësi am na fa ñebbe am na fa li ñuy bay ci réew mi am na fa ñun dañu bëgg un programme spécial boo xamante ni fa lañ koy teg la ñuy bay ñu koy valoriser di di si jëriñu mais aussi di ko jaay. waaw élection locale de xam nga ñun moom euh, comme li ñuy wax rek élection 2014 yi passé demoon neen élection am na lu ñu yàlla joxoon am nañ ay conseil dans le département. Euh, dañuy ram mag rek mais élection yi di ñëw dinañ am taxawaay boo xamante ni ci ci biir réew mi parce que ñoo ngi ñoo ngi massifier parti bi ndank ndànk si suuf euh, bu heure ba jotee bu soobee yàlla dinañ taxaw euh, laaj li nga xamante ni euh, jàpp neen ne suñu parti jàpp neen ne war nañ ko mën a laaj mais personnellement on a des ambitions localement d'abord suñu savoir-faire suñu expérience suñu suñu suñu expertise bu fekkente ne am nañ ko ñun di suñu contribution jéem a laaj confiance ou confiance population Koupentoum